تقطع عليك صلاة الله ثم سلام فإن فؤادي عندك الدار أجمع عليك صلاة الله ثم سلام فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلام وآخرين فكان ذا يقنا تقل بديع الخلق بها محمد بيوم اثنيني ولسان اثنين مبعث لكوني مقدره المبجل فرحة ربيعي بمن خطي شبر من دق البديع فقلها محمد أقرب الشعر العجمي إبريل الشعر الكرمي ببأر حرمي مولد خير المصري يا هدولي بما يغتي تبقى ما تقل ولي أوي يا محمد أقرب يوم الصرا عشرين وسنة رأى لمن خوا فقارا وغرفة بمنظري يا هدولي بما يغتي تبقى ما تقل ولي أوي يا محمد شغال نسيان من غير إنسان قربان قهر إنسان وكاملي مكملي يا طرفي بمرحتي شقيا بمنطق البديع حقيبها محمد همة الآلي في عدة ليالي بظنة المعالي كجعر المفصل أيها طرفي بملأتي شفيع المندق المدير بها محمد يدور بعي بملأتي شفيعي بمنطق البديل أو ربحاء محمد فيا ترى بعيد مرهتي شفيع بمنطق البديل أو ربحاء محمد بها جميل يوم نيل قربي الله بربي وبرضاه وأملي تبيهات أمين لمن هتي تبيعك لمن تقي المدينة ويلقي بها محمد مدي بحسنى وجعلي بحسنى لدى مقالسنا مع رفيق الافضل تبيهات أمين

لا نختصي قوية يا رب بكرامه لمن أتي سبعة لما تقل بدعي أقلها محمد صلى الله وسلم إلى أن أفضل الصلاة ما دام كون إله من بدين لأولي فليطور بنهي بمرة سميع من حب البديع حق بها محمد هادي وصابي وغودي وحبه وكل آل فيه مع صلاة الأكمل تهيأت نبيه لمدحة الشفيع لمن تقي البديع حق بها محمد وآله وصحبه وغوده وحزبه وكل آن هو به مع سلام الأكمل تنيت وردي بمن أتي شبيع من أقل بديع حقيبها محمد نبتو ربيعي بمن أتي شفيعي بمنطق البديع أبربها محمد نبتو ربيعي امرأتي شقيقة منطق البديع أقرئا محمد يا إلهي إغني عظيمها واصنع لقارئها والإذ حضرا وهم بك في رفوتهم دوائب ظلما أفات كثيرة عجب واجب الذي طلبوا بيا أحمد ما سابي الخير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح طرق القاتم ما أبقى ناصر بيق والهدية صراطك المستقيم على آل حق المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما طرق القاتم ما أبقى ناصر بيق والهدية صراطك المستقيم على آل حق المقدار العظيم اللهم صل على الفاتمة خلق القاتم لما سبق ناصر خلق ونادي صراطك المستقيم على هذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين الذي قال تعالى في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين وعلى آله وصحابته الهادين المهتدين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين إخوة والأخوات إخوة الإرشاد دين الله أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكين مبوك يالله مبوك خيتو سيدنا محمد بي ñoo ngi woon ci Tahniya bi ndokkeel weer wi nga xamante ne mooy weeru Sayyidina Muhammad gi mboole weer yi weeru Muhammad la te weer wi lañu yàlla dimbalee ñu am ko di jëmm ñu mu tudd Muhammad yoon ci Muhammad nee na bu'istu min xayri quruni bani aadam yónnee wéef na ma fi xayru quróon yi buñ la laajee xarnu bi gën ci xarnu yi mooy siècle bi gën ci mboolem siècle yi nga ne siècle Seydina Muhammad moo gën ci mboolem siècle misbaaxu dalik jàngal na la ko xayrul quruuni ma aataa fiihi nabiyu suma salaata baadahu aw aqrabi kon buñ la laajee xarnu bi gën cent ans bi gën ci mboolem cent ans bu yàlla mos a bind ay nit mbala jinne di ko dund nga ne xarnu bi gën mooy xarnu Seydina Muhammad moo tax mu ne bo istu min xayril quruni bani aadama qarnan fa qarnan siècle ak siècle kuntu minal qarnu ladi kuntu fiihi ba yàlla dimbale ma si ndimbalab yàlla mu boole ma wàccee ma si xarnu bi gën ci mboolem xarnu yi kon d'accord ne Seydina Muhammad xarnoo moo gën ci mbooleem xarnu bu yàlla mu si bind yàlla boole ko xeet bi gën ci mboolem xeet yi alquran ko wax kuntum xayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah yéen a gën ci mbooleem lu yàlla mos a bind yéen xeetu sayyidina Muhammad kon am na xeet yu fi jiitu woon am na xeet yu fi jiitu woon xeetu xam Muhammad yonent yàlla Moussa rek la ñuy jël tegtal yàlla bi wàccee koor jox ko sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeetam mu xool li si nekk si yiw ak mbaax yi teraanga yàlla dënkal ko xeetu sayyidina Muhammad bi ak li muy nekk yonent yëpp li muy bokk si ulil azmi min rusul juróom yi gën a tarle métit le ba ñu bi ñu def examen ñoom ñoo jàll Moussa Ibrahima Isa dégg nga Nuux sayyidina Muhammad moo jël pay yonent yàlla Moussa ñaan na yàlla ne tamanna kalimullahi law kaana waahidan fi ummati xayri xalqi zaaka maqalu ngir bokk rek si xeetu Seydina Muhammad si yiw yéen a ci mboolem xeet bu yàlla si bind gëm yàlla yéen a digle lu baax kon Seydina gën ci mboolem lu yàlla bind xeetam moo gën ci mboolem xeet bu yàlla mu si bind ndax ñu ñoo am yonent bi kenn amul ñu ñoo am yonent bi nga xamante ne bu nekkul woon ak moom yàlla du bind dara ñun ñoo am yonent bi nga xamante ne ba mu nekk moom ak yàlla sa leer ga kunta nuuran leer la woon wakkaana sama maa u mu ne boobu ngumboog ngëlmaane moo fi ne leer gi projecteur bi am na lu muy leeree leer gi bëri leer gi ëpp bu ñu ko dóoree doo gis leer gi moo ngi gis moo taxoon wéykat bi di ko kunte nuural leer nga woon wa kaana sama amaaw boobu ngël ma nekk ngumbo moo fi ne ndax mënoo dégg dara mënoo gis dara ndax leer gi li muy tappe si yow mënoo gis feneen lu fii leer gi dóor boo xoolee si wàll doo gis dara du leer moo tax mu ne kunte nuural wa kaana samaa ma wa aynan nga nekk jëmm wala tiin wa maaw te boobu ndox ak ban amagul bind ko buñ ndox ak ban moo tax Cheikh Ibrahim di la wax ne rasulun wa aslun naasun maaun wa jandalun fala insa fi dhaka zamani muannas rasulun yonent yonent la woon wa aslu naas mu la laaj kay moo cosaanu mbindee fi kan mooy bàyyi mbindee fi nga mooy aadama rasulun wa aslu naas maa un wa jëndalul boobu moo ngi nekkoon ndox ak ban moom kan aadama ya wax fala insa ba fii yàlla nekk seyduna muhammad ndox amul ban amul mu ne yàlla bi fi nekk seyduna muhammad rasulun wa aslun naas maa un wa jëndalul fala insa déet wéttali fi zaaka zamaani sa jamono jooju buy konte ne ñaar am na kenn fa ne muy jëmu yàlla ji moo tax de di nga dugg xuus si yàlla bi dem ba laal xaqiqatul muhammadiya mu jaxasoo xadratu ilahiya koo koy siiduna muhammad leer googu bu ñu doon topp nga xam ne huwa duratul bayda duratul bayda googu def na juróom-ñaar fukki junne at at bu nekk def na juróom-ñaar fukki junne yi weer weer bu nekk def na juróom-ñaar fukki semaine semaine bu nekk def na juróom-ñaar fukki junney fan fan bu nekk def na juróom-ñaar fukki junney waxtu waxtu bu nekk def na juróom-ñaar fukki junney seconde seconde bu nekk def na juróom-ñaar fukki junney jour ngir yàgg yàggaayab leeru sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax Cheikh Ibrahim nee na zahabtu la amrullahi fi kulli madhabin li li darki rasulillah xayru muassisin ngir fii ci béyat yàlla bi ngir xam am xaqiqatu muhammadiya mune baye neena bima deme ba jakarlo mom le le alf alaf min al kulli shahidan alf ay junne junne kiiraay bàyyi radiyallahu anhu mu ne maa ngi tagi gi li dërki rasulillahi ghayr muhayyis li dërki rasulillahi ghayr muhayyis ngir ma jot li nga xamantene mom moy lew sunna muhammad bi ah mu ngir ma jot ko له ألف آلاف من الهد شاهدا تخيل في القاتل المتأسس تخيل في القاتل المتأسس دم بقرم لو سمع قاتل بي وانت نكما لناب شروع لذلك رسول الله غير جد حقيقة محمد يا يعني. كون موني لي نكون سي كلام ري بور مو داكو لو لو الف الف جوني جوني جوني من الحج شاهدا سي اي حجوب سي اي كيراي taxayara bil xaatiru mudassir ngir du naagu ngir jot ki nga xamante ne moom mooy siduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam asan wax na ko léegi yaa Moustapha min qabli nashati aadami wa kawni lam tuftahu loo axlaam eyo Moustapha eyo kintaan yaa Moustapha eyo mintaan min qabli nashati aadami laata aadama ñu koy sos mbala muy juddu ngay wax bu ñu bu juddu sax di am sax day fekk sax sos am ndax aadama yàllaa ko bindee si coobareem si kun fayakun qabla nashati aadamin wa kawn mu ne kawn bi am nu dafa tëju woon caabi bi mooy Seydina Muhammad yaa Mustapha min qabli nashati aadamin wa kawn lam tuftahu loo aax dafa tëju woon ay yéen ndax mos ngeen gis mu jirim bu mel ni Muhammad ay room ndax ñu tagg ko mel ni moom keneen amu ko te ci way njëkk ci way mujj kenn dootu mel ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla yokkal mbëggeel ci moom wax naa ko ne Mawlana Seydi Hadji Malick Sy nee na wa innahu iz arada allahu nashatana abana bi nuurihi nuurina bil alamin mu ne bi yàlla na mee amal mi ndaa kon yi nu mu def dafa fàccee dafa jëlee ci leeru yoon ci yàlla Muhammad ngir mun amal mi def leeram googu bu ñu doon wax fii ba suba du jeex ndax dafa toog ak saxaa saxaaba mu ñu tuddee jaabiri jaabir ibn abdillah mu ne ko yaa jaabir mu ne ko labayka yaa rasulullah mu ne ko ataarif awwala ma xalaqa allah yow jaabir est-ce que xam nga lii yàlla njëkk bind jaabir sëgg sëggi ko ne ko allah wa rasulu alam lii yàlla njëkk bind yàlla rek moo ko xam ak muhammad mi yonente yow mi toog mu ne ko yaa jaabir awwalu maa xalaqa allahu nuuru nabiyek yow jaabir maa ngi lay bégal ne maa ngi lay xamal ni lii yàlla njëkk bind mooy leeru yonente bi toog yow kon su fekkee ne moom la yàlla njëkk a bind moom la yàlla njëkk a fent jaal qadiimu min qadiimin huwa allahu sumistafaahu liyahdi bi asyaali nuurul xalqi min rabbi jalla jalla xaasilul xalqi li dalaalil fasaad leel googu suba yanke yi wax nañ ci lu ne Cheikh Ibrahim moo ko leeralal ngir wax ñu ne moom mooy buruusu te jëlli zaati awula abidin moom mooy buruus bi mooy feeñuwaay bi njëkk a feeñ di jëmm yàlla ji boo ko bëggee xam mooy muhammad yonent yàlla muhammad mu njëkk wital yàlla sëriñ bi naka la ñuy koo xamante ne dañ ko war a jox julli mu fekk ma ci beytil maqdis mu jiite leen mille cent vingt quatre prophètes nga fekk leen ci beytil maqdis jiite leen te joxaguñ la julli ci loo leen jiite ci tawhid kon mooy awlu tawhid yi awlu qaaimin moo njëkk jóg uti yàlla moo njëkk dox siru jublu yàlla awlu tawhidin wa awlu qaaimin yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baay radiyallahu anhu nee na mu njëkk a yëg di yàlla la laata dara bu ñu awul aabidi mu njëkk a jaamu yàlla yonent yàlla Iisaa dañoo ne doomi yàlla la alquran di wax leen nañ ñu munta nekk doomi yàlla ndax lam yalid wa lam yuulad yàlla na la ah, bu fekkoon ne yàlla day am doom law aradna an nattaxida lahwan la taxadnaahu min ndax moom moo njëkk jaamu yàlla bu fekkoon ne yàlla na mën a jàpp doom kon Sidina Muhammad la ko jàpp ndax mooy awula abidin mu njëkk jaamu yàlla konte màgg na si yàlla muy jàpp doom bala muy jàpp àndaale bàyyi radiyallahu anhu nee na nag li gëlëm loo xoolee xel yi lim njëkk si li lépp lu yàlla bind ba pare yu mujj yëpp yónni loolu noonu te xayyara qalbu wa lubba loolu moo gëlëm loo xol yi ak xel yi baadu rusulin wa ko muqaddimun taaxara baadu rusulin moo mujjee ñu yónni ko taaxara baadu rusulin wa ko muqaddimun fa diddu diddi mu ne safaanab safaanab loola taxayira qalbu wa lubba moo gëlëm loo xol yi moo gëlëm loo xel wante Baay radiyallaahu anhu moom de gindi nañu ngir leer gi ne ñu ngi bàyyeekoo si Seydina Muhammad ñoom ñëpp ay waame lañ Seydina Muhammad mooy géej bi ndax war kullu minhu kullu batnan wa zahiran fa bahru siwaahu maa lana fiil mashrabu muy lépp lépp ngi bàyyeekoo si moom war kullu wante minhu kullu lay wax yonent Yàlla Muhammad mooy lépp lépp tamit bàyyeekoo si moom muy ifaadat li minka ilayk batnan wa zahiran li nga teg bat ak li nga mënut a teg bat فبغر سواه بغر برود سيدنا محمد ما لنا في المشرب أم جسول بيتان قدنا نعم. فبغر سواه ما لنا في المشرب يلن يلا نندل في جي سيدنا محمد جي. محمد البغر حالي مبحكرو محمد الشمس الضائي مضيء حبيبه كم لير نعم لير كم جيجل نجيجو سيدنا محمد بخرو حالي محمد البخي محمد البور حالي مبحكرو حبيبه محمد الشمس الضائي مضيء حبيبه مولم ليري مولم ليري فإنه الشمس الفضل مجت الجنر جم محمد سيرجي بوي تال صلى الله عليه وسلم لوارلا نحن لندم جيونا ana jant bi sona ah ana jant bi sow kon sondeel bu ñu ko doon jaay heure bi moo dina jàpp ngay taal sondeel di ko taal ba sept heures ba dix heures midi moo di nga taalate sondeel six heures du matin sax yow soxlaatoo sondeel ndax su fekkee ne am na ñoo xamante ne ñu ne Mali sax Mali six heures du matin la seen jant mu di fenk ngir leer ñëw ñun dix heures ndax di jëm ci bitig bi dafa jàmm sondeel لغة ليه ده لير دي نيو نكال موي لير دي سيرنا محمد فإنه هو الشمس الفضلي مو مجنت جنل دي ولكن بدي جي جات نجيس وير نجيس بدوي بدوي كل جلسة سن لير ها سجنت بي نيوم نيب وكلهم من رسول الله ملتمسون طرفا من البهدي أو رسم من الضيمي نيوم نيب أي واحد muy géej gi dóor ba fees mu am benn pàkk mu am lu ndaw si benn kàmb bu fees ndox mi daw dugg fa feneen naka noonu mu fees mu dugg fa di siiduna Muhammad mooy muy bëru bi ñoom ko ay lan boo gasee bi léegi buy taw ndox mi mën a si dugg fekk fi fees na dell fees muy fees moo tax muy roogaat bay dugg si yenn kàmb yi kàmb yooyu noonu mooy waame Muhammad mooy bëru yi Hmm? وكلكم من رسول الله ملتمسون الحق من البحر ورس من الضيام يلا يلا ما يديك توب يلا يلا يوكو من بجير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي دوكل ييب السلام عليكم ورحمه الله وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه نيب السلام عليكم ورحمه الله يرى يتقطع عليك صلاه الله ثم سلام فإن فؤادي عندك كالدار أجمع عليك صلاة الله ثم سلام فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلام